ok incha allah ñu ngi war a jël jeexitalu suuratu faatir ci aaya fanweer ak juróom-ñeent ci suñu boroom subhanahu wa taala di waxe ne huwa alladi jaalakum xalaa'ifa fi l ard suuratu faatir aaya fanweer ak juróom-ñeent إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين sunu daara yi ay boobu dañuy am daje fala Cheikh Ousmane Dem yal na yàlla barkeel ko kon ñu dimbali ko sunu jàngukat bi di ki nga xam ne mooy Mahmoud Al Khusayri incha allah.
هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كلهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعن الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu boroom mu ne huwa alladi jaalakum xalaa'ifa fi l ard moom day moo leen def ay kuutaay ci kaw suuf fa man kafara fa alayhi kufru képp ku weddi dana dellu ca moom kéeféeram ga wala yaziidu alkaafiriina kufruhum du dolli yéeféeri seen weddiga inda rabbihim illa maqta du leen dolli ci seen boroom lu dul mer mu tar may bawoo ca moom wala yaziidu alkaafiriina kufruhum illa xasaara du dolli yéeféeri seen kéeféer ga lu dul pertaange qul araaytum shurakaakum alladina tad'uuna min dunillah neel mu ndax gisu leen seen bokkaale yi nga xam ne yéen ngi koy woo gannaaw yàlla aruni maada xalaqu min al ard won leen ma lan lañ bind ci suuf am lahum shirkun fi samawat wala boog dane na ñeel ak bokkaale ca asamaan ya am aataynaahum kitaaba wala boog ñun yàlla ñooy leen jox ab téere fa hum ala bayinatin minhu ñoom ñu nekk ci lay yu leer ci téere boobee bal in ya'idu zalimuna ba'duhum ba'dan illa ghurura li am kay mooy digul tooñkat yi lenn la la ca des xanaa lu dul ay war kese inna allaha yumsiku alsamawati wal arda an tazula yàlla day moo téye asamaan yi ak suuf ci ñuy bañ a dem di tasaaroo di génn fam leen tënkoon wala in zalata bu doon dañoo demoon tasaaroo génn fa leen yàlla tënkoon in amsakahuma kenn du leen mën a jàppaat min ahadin ci kenn kum mën a doon min baadihi gannaaw yàlla innahu kaana xaliman gafura moom day mooy ko lewet ki kay jéggalaate ay bakkaar ñu ngi noonu bokk suñu boroom gis nañu ne wax nañu ay jëfam yu bari ci ay mbindaafonam bokk na ci tey mu ne moo ñu def ay kuutaay ci kaw suuf te mbokk ñun ñii di dund tey ci kaw suuf dafa am benn génération bu ñu fi wuutu génération yooyu ñu bari ci ñun seeni waajur ca lañu bokk dem nañu ñu bari ci ñoom bu ca seen waajur bokkul it seeni maam ca lañu bokk kon am na ñu fi nekkoon dem tey ñoo ngi fi ñoo ngi xëy ñu ñuy yégal ngénte gauche droite ñi ñooñu nga xam ne ñoom la ñu yégal seeni ngénte ñoom ñoo ñëw pour relever ñu ñu nit ci nekk bi ñu nekk ci kaw suuf borom boobu nga xam ni moo bind doomu aadama di ko jaarale ay jaaral nga jaar sa biiru yaay yàggoo fa dara nga wàcc ci kaw suuf soo ñëwee ci biir suuf da nga fi jóge dem ci bàmmeel suñ ko comparé ak sa dund ci kaw suuf da ngay gis ne moo gën a gàtt buñ doon mingalee la nga def sa biiru yaay ak ci kaw suuf bàmmeel boobu it gannaaw ba boo fa jógee nga dem teeri ci sa borom loolu kon bindaafanu yàlla lañu mu ñuy wëlbati num ñu neexe léegi nag tontu li mooy wala boog laaj bi mooy ñun lu ñuy def ci kaw suuf soo demoon ci ñooñ ñu tudde ay philosophe nga xam ne ñoom gëmuñu seen borom yàlla lu nekk wax nañ ko ca donte ne boo dajalee seen wax yépp mi ngi dellu ci ne ñun fan lañ jógee ñoom ñépp seen wax mi ngi dellu ci ne hasard lañ jógee dañoo am rek par hasard mais amul kenn ku ñu bind ñaareel bi mooy lan moo tax ñu nekk ci kaw suuf mooy dañoo ñëw ci kaw suuf pour survivre mooy li ñu tuddee le hasard et la nécessité mooy bëgg gi nga bëgg dund loolu mooy tax doomu aadama di mën a dem di liggéey ak am alal ak kaza wa kaza kaza waaye amul lenn ndigal luñ fi def amma buñ jógee ci kaw su fuñ jëm ñoom ñépp à l'unanimité d'accord nañ ci ne ci poussière lañ jëm waaw mbokk jullit koo xam ne dafa jàpp ne amul boroom ci hasard la jóge jàpp ne amul benn warugar bu ko war ci kaw suuf jàpp ne bu dee poussière la ndax ku mel nii mënees naa séentu ak mbaax ci moom abadan kenn mënta séentu ak mbaax ci moom loolu kon la ñi xamul wax am maa ñi xam ñoom dañuy xam ni suñu borom yàlla moom mooy ki nga xam ne nee na huwa ay huwa mooy ki nga xam ne moo ñu bind mooy ki ñu moom mooy ki ñu indi bi mu ko neexee ci kaw suuf waaye moom moomu itamit mooy ki nga xam ne nee na bind ñu boyal ñu afa xasibatum annama xalaqnaakum abasa ndax da ngeen jàpp dama leen bind boyal leen déedéet dafa yónni ci ñun ay yonent sant ñu ci ñun ay responsabilité gannaaw ba fan la ñuy mujj wa ila llahi almasir jàng nañ ko démb wa ila rabbika almuntaha ci sa borom yàlla la ñuy mujjee léegi nag ñooñu weddi ne yàlla wàcciwul ci ñoom dara doonte ne yéeféer yu jëkk ya ñoom gëmoon nañu yàlla leen bind yéeféer yi tey ñoom ñoo créé l'athéisme pur et dur jàpp ne hasard lañ jóge quand même ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne gëmuñu yonent yi suñ borom nag ne ñooñu nga xam ne dañooy weddi yonent yi day la nga xam ne moom la ñuy dund ci kaw suuf du leen dolli lu dul merum yàlla te mbokk boo yéenee ab yéeféer musiba ne ko yàlla na nga gudd fan waay mi ngi noonu yàlla na nga gudd fan ndax chaque jour bu mu dollee ko ay meram mi ngi dollee ko ci yàlla mbugalam mi ngi dollee ko ci yàlla mi ngi noonu suñu borom mu ne kéefër ga du leen dolli lu dul pertaange kese chaque jour ci kéefër da leen di gën a soril yërmande yàlla loolu nag mbokk nekk contraire u julit julit bi jaamu yàlla moom bés bu xëyee dana def juróomi waxtu farata dana tudd yàlla dana wax lu baax def lu baax chaque jour da koy yokk mu jege boromam subhanahu wa taala loolu kon ñu gis la yonent bi alayhi salaam doon wax ni ki gën ci yéen mooy ki yàlla guddal fanam ci ay jëfam rafet ki yiis ci yéen mooy ki yàlla guddal fanam ci ay jëfam ñaaw borom bi subhanahu wa taala bàyyi loolu daal di ne ay yéen ñi nga xam ne da ngeen di bokkaale wan leen ma ñii ngeen di woo bu ngeen jàqee ci duñu yàlla ana lan lañ bind ci kaw suuf wala luñ bokk ak yàlla ci kaw asamaan bokk jullit da ngay gis benn waay boo xam ne heure bu jàqee ne yaa cheikh nangam heure bu jàqee ne yaa sëriñ nangam mi ngi noonu loolu kooku nga xam ne dañ koy woo nga jàpp ne am na kattan lan lañ bind ci kaw suuf abadan ba yàlla laajee laaj bi ba tey nit dafagul daf gu toll ne ne man day saf sëriñ moo bind montagne yi wala moo bind garab yi wala moo bind ndox mi ñuy naan abadan léegi suñu borom mu ne waaw ndax da ngeen jàpp am na lu ñu bokk ak man ci asamaan yi jant bi ma taal ndax jàpp ngeen ne maag cheikh diw ak maag sëñ diw ñoo ko bokk te loolu mooy wax ak jurit ñi nga xam ne dañuy bokkaale ngi noonu amma boo demoon ca ñay jaamu ay xërëm même question bi lañ leen di laaj jamono yi aaya yi di wàcc waa makka ñu ngi doon jaamu laat wal uzza ak manaat seen xërëm bi gënoon riic ci kaa bi gi muy hubal keroog bañ demee xazwatu uhud yàlla nattu leen fa ñu am fa lu ñuy tuddee ak ngañaay dañoo jóg ñoom ñëpp ala hubal ala hubal waaw hubal moo màgg waay su nent bi alayhi salaam ne sahaaba yi du ngeen leen tontu ñu ne ah lu ñuy tontu mu ne ne leen allahu ala wa ajal yàlla gën a màgg moo gën a kawe te moo gën a màgg gën a tedd abu sufyan taxaw ci kaw montagne bi ne waaw yéen ñi gëmul dara lana uzza wala uzza lakum ñun ñoo gëm uzza di ko topp moo tax dimbali lam yéen gëmu leen tous moo tax am ngeen toroxtaange yonent bi alayhi salaam ñi tontu leen ko ay allahu mawlana wala mawla lakum ñun yàlla mooy suñu féete ci ñun amu leen kenn ku leen di féetewoo ci lépp looy jaamoo lu dul yàlla yow yaa koy taxaw waaye moom du la taxaw abadan gis ngeen usa boobu ñu doon wax ñoo daan dem di ko sampal ay garab ak di ko wadd ak parfum ak tuur xaalis ak ila axiri ila axiri moo tax suñu borom yàlla ne tooñkat yi day diggante wuñu lu dul ay war kese boo ko àdduna yoonu réer ñaar a fa nekk mooy ñaar ñoo xam ne seeni xel réy na ci kaw ña ca des nax leen gurgur leen ne leen kaay leen fii defi leen ci yoonu yàlla pour jëfandikoo leen gannaaw ba nag dig leen lañ leen di dig ndax mbokk xam nañ ne doomu aadama yi bu dee yéene yem ca yàlla boo bëggee fexe ba ñu bàyyi seen toolu bay di bay say tool lu ñu liggéey ci àdduna bi fu ñu mën a nekk dajale yépp indil la boo fi jógee ñu defal sa doom boo fi jógee ñu defal sa sët fokk nga dig leen loo xam ne moo leen di jaral loolu loolu nga leen di dig nag la ci ëpp mooy lan mooy jàpp ne mënan nga leen pexe àllaaxira bu ñu demee ci kanamu borom bi loolu nag mbokk julit da ngay gis ni nekkul lu dul ay naxante yoo xam ne doomu aadama yi dañ koy naxante ci seen biir sama mbokk Moustapha Cissé ci Italie yal na ko yàlla dolli wér ne na dafa ànd ak nijaay ji banque bi ñuy fekk banque bi fees del nijaay ji am kum fa xam dem gis ko problème am mu daal di koy jëlal ay chegam daal di koy defaral yépp jox ko biñ génnee ci banque bi mu ne ko Moustapha gis nga lii ngeen ñuy weddee nag lii moo tax ñuy utub sëriñ bu ñu yaakaar yowmal qiyaama gis nga kii bi ma ko xamee nim ñuy nim réglé sans problème mbokk loolu lañ jàpp jàpp ne yàlla moo ko ay jaamama yem waaye mbokk règle yi am àdduna bokkul ak règle àllaxira kooku bi mu ñuy fekk ne ay nit ci banque bi ñu ko fa jiitu ñu jël lañ waroon a servir ñoo ñu servir ko moom loolu injustice la yaa ngi dégg suñu borom yàlla du def loolu ca loolu nag lu bari ci doomu aadama yi moo leen réeral moo tax suñu borom ne fala tadribu lillahi al amsal bu leen jël yàlla di ko misaal ak yu mbindaa fanam déedéet suñu borom lam ñuy wax ëllëg lu fa waay am mooy lañ fa liggéeyoon am naa képp ku la dig ne kaay kat topp ma jaamu ma del def samay digal bàyyi samay tere allaaxira moom maa la fa féete loolu mbokk da ngay gis ne ay war la yoo xam ne toñkat yi ñoo koy diggaate sunu borom yàlla subhanahu wa taala nañu xam leen ne yàlla moo téye asamaan yi ak suuf ba géñu ñu fi leen yàlla rëddal sunu borom mu ne kullun fi falakin yasbaxoon mbokk da ngay gis ne kaw kaw asamaan yi ak suuf bi yàlla subhanahu wa taala may doomu aadama xam-xam gis nañu yooyu yëpp dafa am benn orbite bu ñu placé masalan jant bi scientifique yi di wax digganteem ak suuf yàlla mi ngi ci def cent cinquante millions de kilomètres ñoom ñëpp ñi ngi daw suuf yi ngi daw ci ñetti rotation dem nañ sax bay natt na dana daw cent sept mille kilomètres par heure la suuf bi di daw ak ñun ci jaww ji ñu ngi toog fi jàkk jéeguñu ko mais mi ngi daw ak ñun cent sept mille kilomètres par heure gis ngeen loolu kan moo ko téye ci place boobee téye jant bi téye biddiw yi ba benn déplacé wul fa ko yàlla subhanahu wa taala rëddal falak boobu muy wër ba ko kooku yàlla mooy ki ko téye sunu borom jalla wa ala moom la ñu tuddee alqayyum moo taxawee lépp moo téye lépp mu ne gis nga buñ génnoon bu suuf génnoon orbitam jàdd jëm feneen di daw sori jant bi nga xam ne bu ko sori woon lu bokkul ak li ko yàlla nattale suuf yëpp bloc de glace lay doon bu ko gënoon a jege lu bokkul ak li ko yàlla nattale suuf yëpp day tàkk mu ne bu fa jóge woon kenn du ko téye ku dul moom loolu mbokk la julit war a gëm sunu borom subhanahu wa taala yërmaande bi mu am ci ay jaamam loolu moo tax ba ba mu koy wax ci ayatul kursi ne allahu la ilaha illa huwa alxayu alqayum dafa ne la taaxuduhu sinatun wala nawm ndax lahu ma fi samawati wa ma fi l ard moo moom asamaan suuf di ko taxee moo tax du nelaw du gëmmeentu soo delloo ci téere bani israil yi dañ ne yonent yàlla Moussa daa toog mujje muy xalaat waaw ndax yàlla dana nelaw waay sunu borom yàlla mi xam ci biir dënn yi daal na ko Moussa na jël ñaari plate mu jël ñaari plate yi téye mu ne ko nag téye ko ba ma jox la ndigal ci nga bàyyi ko ah Moussa téye ay plate ba xam naa téye na ko suba ba ngoon ba ba xaaju guddi bañ demee ba njël di waaju jot rek Moussa gëmminti na fëlëx plate yépp rajo ko bi mu jógee mu ne yàlla li mu doon xalaat daj naa ci de yaa ngi dégg yaa mooy yàlla du gëmminti du nelaw suñu borom bu gëmminti wala mu nelaw musiba am mu mooy ki taxawe lépp mooy ki téy lépp borom boobu nag mu ne mooy alxalim lii muy defal doomu aadama yi yépp teewul ñu naan yàlla am na doom teewul ñuy mooy ay ndigalam teewul mi ngi leen continuer di xéewal lu tax mooy ki gaawul a mer mooy ki dal ki alxalim te it mooy alxafuur yéefar yi dana leen muñal ba laaxira képp koo xam ne tuub na ci mu baal ko mi ngi noonu suñu boroom jalla wa ala ci kattanam ga ak dalam ga ak yërmandeem ga
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد بسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا
sunu boroom jalla wa ala mu ne wa aqsamu billahi ñoom day ña ngay waat ci yàlla jahda aymanihim la gën a tar ca seen ngiñ ya ñuy giñ la in jaahum nazir ne bu leen dikkalee ku leen di xupp ay ab yenent la yakununna ahda min ihda al umam kon day daan nekk di gën a jub lenn ci xeet yi jiite woon ci yoroon téere mu yahudi ak nasaraan ya falamma jaahum nazir ba mu leen dikkalee yonent bu leen di waar ma zaadahum illa nufuura dolliwu leen lu dul dolliwu leen lu dul gën a tasaaroo istikbaaran fi l ard ñu ànd ak réy réylu ci kaw suuf wa makra wa makra sayyi ak pexe ay pexe yu ñaaw wala yaxiiqu lmakru sayyi'u illa bi ahli doonte ne day du wàcc la nga xamee ne nii mooy pexe bu ñaaw lu dul ca ka nga xam ne mooy borom ba ka yeyoo ka ka jëfe fa hal yanzuruna illa sunnatu illa sunnatu alawalin ma ndax xaaruñu lu dul aaday ñu leen fi jiitu woon falan tajida li sunnati llahi tabdila doo fekk mukk ci aaday yàlla ak coppite walan tajida li sunnati llahi tax taxwila doo fekk mukk ci aaday yàlla ak wëlbatiku gi muy wëlbatiku jëm feneen awalam yasiru fi l ard moo ndax ñoom yéefér yi doxuñu ci kaw suuf fa yanzuru kayfa kaana aaqibatu alladina min qablihim ñu xool naka la nekk woon mujjug ña nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon wa kaanu ashadda minhum quwwa te ñoom ñoo gënoon a tar ñeel leen ci kattan wa ma kaana allahu li yujizahu min cheyin doonte ne yàlla nekkul woon di ko mën a të ci dara lu mën a doon fi samawati wala fi l ard na doon ci kaw asamaan yi la wala ci suuf innahu kaana aliman qadira moom day dafa nekkoon di aji xam lépp di aji kattan ci lépp mi ngi noonu bokk bokkoon na yéeféer yi lu ñu daan wax naan ñun dey bu doon yàlla daf ñoo yónni yonent daan doon ñu gën a jub la nga xam ne mooy xeet yi nga xam ne ñoo ñu jiitu woon ca mooy yahuudi ak nasaraan yi te booba yëg yëgoon nañu ne yahuudi ak nasaraan yi lañuy woote woo ci seeni téere ñoom jëfewuñ ko ñoom nag jàppoon nañ ci ne ñi ngi woon ci diine muy waa Makka jàppoon nañ ne ñi ngi woon ci diine yi maam Ibrahima alayhi salaam doonte ne ne nekkuñu woon di gëm la Ibrahima gëmoon ci ne yàlla kenn la gëmuñu la Ibrahima gëmoon ci ne allaaxira am na waaye dañ doon wax ne seen diine maam la ay mooy seen maam jeex na comme yeneen yéefar yépp lañ ñu wax sun maam yi daal lañ nekkoon ca la ñu nekk jeex na borom boobu nag subhanahu wa taala ne yàlla wëlbatiku tànn ngën ci yonent yónni ko ci ñoom waaye bi yonent bi ñëwee da leen a gën a dolli ak tasaaroo ci réer ndax xam ngeen réer ñaar la mooy réeru daalin ñi nga xam ne xamuñu nu ñuy jéem a yàlla ay yéeféer lañu seen kéeféer lañ nekkee dara baaxu ci waaye mu am nag réeru gu ko gën a bon fuuf mooy réeru maxdubi alayhim mooy ñi nga xam ne dañoo yónni ci ñoom yeneen te won leen yoon ba pare ñu lànk kaare topp seeni bànneex ñooñu ñoo gën a bon ak réer moo tax suñu borom ne yeneen bi mu ñuy dolliwu leen lu dul gën a réer ay gën a tasaaroo ci yoonu cankute lan moo ko waral ndax yeneen bi daa indiwul preuve yu leen convaincre déedéet suñu borom ne la waral kay loolu mooy istikbaaran fil ard dañoo réy réeru ci kaw suuf ca mbokk la ëppoon ci ay ñuy alko woon da leen alak mooy loolu masalan la gaa yi doon wax yonent yàlla nuux muy njëlbeeni yonent anu'minu laka wattabakal arzaluun ñun ni ñuy demee di la gëm di la topp ci yow baadool yi rek nga dajale ànd ak ñoom naka noonu it mboolem yeneen yi ñëw gannaaw ba loolu lañ leen tontu ay ba suñu yeneen ci alayhi salaam bu ci mujjoon suñu borom mu ne ko wala tatrudi allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi ñii bëgg nga dàq baadoolu yi ñoom bilaal ñoom shuaybu ñoom ak ñu demee noonu ngir jàpp ne kon dañ la gëm abadan bul def loolu looloo tax ba mbokk la ëpp luy tabbal doomu aadama bi sawara gannaaw bokkaale muy rëy yeneen ci bi alei salaam ne rëy nag mooy batrul xaq wa xamtu naas rëy mooy ñu wax la dëgg nga bañ rëy mooy xeeb doomu aadama yi ñu bari la leen teewoon dugg ci biir lislaam mooy xeeb gu ñu xeeb doomu aadama yi pour bañ a yem ak ñoom gannaaw biir ñi ngi nekk di fexe ay ñaawteef te ñaawteef yooyu yi ci gën a màgg mooy fexe ba islaam fay fexe ba jullit ñi génn ci seen génn ci seen lislaam boobu suñ borom nag ne pexe bu bon du wàcc lu dul ca ka nga xam ne moo koy pexe ay daan def coono bu nekk du tee yàlla subhanahu wa taala dana yëkkati diineem dana kawel diineem ak luñ ko bañ bañ bañ am naa benn koo xam ne ñu nekkoon ak ñun fi daaw di Muhammad Taal doon fi def itikaaf yàlla dogal ren mi ngi itikaaf masjidul haram mi ngi may woo naan ma ah imam bu ñu fàtte waa masjidul haram ndax fi mu nii li fi nekk ci ay soldaar kenn xamul nu ñu toll mais dañoo déborder kaabe gi fees na del ca li nekk ci bitim bëgg dugg moo ëpp fuuf li nekk ci biir donc coono bu ne gars yi ñu ngi koy def te it mbooloo moo dem fekk fay caamini ku soyoon yoo xam ne seen xir daa ëpp ne na da ngay gis gaa yoo xam ne dañuy yéeg ci kaw étage yi di cëppeelu sax ci biir biir biir mbooloo mi te it ñu bëri duñ ko mën a muñ passé naa Sénégal wala Bangladesh wala fenn démb fi ñu ne mën a dugg ci Kaaba gi xam nga ñu bëri duñ mën a comprendre loolu mais nag lu yàlla dogal it kenn mënu ci dara mu ne daal vraiment nañ leen di ñaanal yàlla ndax la fa daje ci mbooloo kenn xamul lu mu toll. waaw gars yi jamono bi yéeféer yi nag di daje naan Muhammad ak 40 personnes ak 30 personnes yi ko topp nañ fexe ba fay diineem ji buñ dekkee waatoon daañu waaru tey de ah mi ngi noonu. su ko defee loolu la suñu borom yàlla wax mooy muñul rek ndimbalu yàlla dana ma sa ñëw wa tara naas yadxuluuna fi diinillaahi afwaaja tey mboolem nationalité yi dund ci kaw suuf de l' extrême orient à l' extrême occident fu nekk ay nit a nga fa jógee dem aji ji mag gis ngeen loolu di kattanu yàlla pexe yi yéeféer yi pexe dara ci seen kaw lay dellu rek waaye it mbokk jàppal loolu képp ku jóg di pexeel moroomu jullitam musiba ci sa kaw lay dal i nga noonu képp ku jóg di pexeel mbokk jullitam musiba na xam ne ci kawam lay dal loole ñu bàyyi ci xel bu baax mag ñi dañ naan yéene day ab néeg la waaye borooma cay fanaan booy yéene nit ñi yéene leen lu baax tànk yaa ngi leen yéene lu baax di leen ñaanal lu baax lu baax loolu lay dellu si ci yow amma yéene leen lu bon jóg ji def ci ñoom lu bon lu bon loolu day dellu si ci yow amoon nañu ay dëkkandoo benn jigéen dafa dem am benn tariyaax bu mu woo pour liggéeyal ko wujj wi na ko liggéeyal wujj wi na dee wala mu def na dem wala mu dee wala mu def waa ji liggéey ba pare làqatu ci guddi gi pour jox si ko liggéey ba mu ko jox far jaawale dem ca wujj yam doon liggéey jox ko ko kee tamit ba mu génnee gis sëriñ bi taxaw wujj bi di ko expliqué mun a àdduna tukki de dem ci néegam lam ay bagage am génn dem yoonam moom ca moo doon liggéey kii pour na dee wala mu def wala mu dem gis ngeen loolu mbokk ay mbir la yoo xam ne lu jara bàyyi xel la ca ñu bari dañuy nekk ci ay service nekk di liggéeyante mi ngi noonu di liggéeyante nekk ci ay place ci commerce di liggéeyante ñu mbokk loolu jaru ko ku ne sa wërsëg ngay yor sëy bi yàlla dogal ma samba ànd ak ma paate mënu ci dara loo ci sonn sonn sonn tant que dogalu yàlla ñëwul da ngay sonn rek amma boo bëggee nag lor sa bopp dëgg-dëgg na nga fekk yi yàllay dogal ba pare nga jóg ne yow da nga koy dindi ci njabar wala da nga koy dindi ci ay pexe lépp ci sa kaw rek lay dellu wala yaxiiqul makru sayyi illa bi ahli borom boobu subhanahu wa taala nekk ne xanaa nit ñi doxuñu ñu xool naka la nekkee aada yàlla ci ñi jiitu woon borom mu ne alam tara kayfa faala rabbuka bi aad irama zat al imad allati lam yuxlaq misla fi buyaat wa firawna wa samud wa qawmu nuux wa qawmu ay xanaa doxalin ci kaw suuf gis ñooñu fi nekkoon weddi woon ay yonent fa yàlla mujjeeg ñoom ñoom ñëpp yàlla subhanahu wa taala da leen a alak te dox boobu imma muy doxu tànk wala muy doxu nopp nga déglu ñu nettali la ña fi jaaroon ana fan lañ jaar borom boobu nag ne yéen waa Makka ñooñu ma alak ñëpp ñoo leen ëppoon kattan ñu ngi noonu xam leen ne sa borom yàlla nag dara mënu koo të na doon loolu ci asamaan yi la wala ci kaw suuf loolu moo tax ba ñun julit mbokk dañuy gëm ne kaw asamaan ak suuf benn doole fi nekk muy doole yàlla mbokk américain yeeg russe yeeg yëpp ay nattu la yu yàlla nattoo leen nattoo ko adduna bi waaye amuñu pexe amuñu kattan kuddul yàlla bés bu ne yàlla jox leen lu leen jommal ngi noonu da doon am ndox la da doon am ngelaw la da doon ay tremblement de terre la wala ay guerre yu muy taal seen biir la ila axiri te yooyu yëpp suñu borom moo ci def petite dose boo xam ne bu ndaw rek la waaye su neexoon yàlla mu xiddi ab tawam pendant un mois ci kaw États-Unis ba seen gratte ciel yelab luñ ci man dara bu neexoon yàlla mu indi tremblement de terre ci Russie luñ ci man dara su neexoon yàlla mu jox géej ordre mu dem maasale Chine luñ ci man dara su ko defee kon yàlla mu ne dara tuwuma ci kaw asamaan ak a suuf xanaa nag moo wàcc ay jaamam bàyyi leen ci kaw suuf nattu leen ba xam nu ñuy jëfee yéeféer yay jëf lañ ma ne jullit yay jëf lañ ma ne loolu kon la jullit war a gëm mais yàlla du ne li saay saay si def ci kaw suuf da cee mënul dara déedéet borom boobu subhanahu wa taala mu ne mooy ki xam lépp ay dara réeru ko ci liy xew ci àdduna bi xew Syrie Afghanistan fu mu mën a doon ci àdduna bi lépp xam na ko te it mooy qadira moo am kattanit ci changer lépp ci saxal lépp mi ngi noonu moo tax sànq wax nañu ne la nga xam ne muy sunnaam doo ci fekk ak coppite mi ngi noonu ca mooy yàlla digle ne ne dana teral jullit ñi dana toroxal yéeféer yi loolu du soppeeku ca it doo ci fekk ak wëlbatiku duñ dem àdduna yàgg ba yàlla toroxal jullit ñi teral yéeféer yi mi ngi noonu du changé du wëlbati ko def neneen la hawla wala quwwata illa billah loolu kon mbokk lañu sunu borom yàlla subhanahu wa taala dalali xelu jullit ñi ngir ñu mën a dellu ci moom di ko doyloo mi ngi noonu
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا
sunu borom mu ne walaw yuaxizu llahu naasa bima kasabu tey bu yàlla jàppe woon nit ñi ci li ñuy fàggu maa taraka ala zahriha min daabba kon day du woon bàyyi ci kaw suuf lenn loo xam ne luy doxati la walakin yuaxiruhum ila ajalin musamma waaye di leen di yéexe ba ci digg boo xam ne tudd na ko ba pare fa ida jaa ajaluhum heure bu ñëwee seen digg ba fa inna allaha kaana bi ibadihi basira sa borom yàlla day nekk na ci ay jaamam koo xam ne ku leen gis la ay ko xam seen lépp la mi ngi noonu mbokk gis nañu sunu borom yàlla wax nañu ne dara teewu ko ci kaw asamaan yi ak suuf yéefér yaa ngi yàq kaw suuf sunu borom yàlla mu ne da ngay gis ne loolu bu doon tene ne bu ñu defee lu bon rek ma intervenir kon boobu ba tey benn luy dox ci kaw suuf dootu ci doxati da doon nit la wala gaynde la wala lu mën a doon ndax mbokk xam ngeen musiba du yem ci bopp borom heure boo xamee ne nii doomu aadama yi nekk nañ ci musiba sunu borom yàlla ci mbaaxam li muy def léegi-léeg indi ay scandale yu ndaw rek comme li mu wax ne zahara alfasad fi lbarri walbahr bima kasabat aydi nnas li yuziqahum ba'da allazi amilu laallahum yarji'un suñ borom nee ne léeg-léeg mu yëngal géej léeg-léeg mu yëngal suuf si léeg-léeg mu téye ab tawam ñëwatul léeg-léeg mu yokk van yi dëkk bépp inondé léeg-léeg mu indi ay ngelaw yu fitnaal nit ñi mais loolu da ko def muy ay kii yu ndaw pour nit ñi tiit dellu gannaaw waaye bu leen jàppe woon dëgg-dëgg li ñu doon def kon du fi bàyyi kenn comme na mu alage woon waa aad ak waa samud ak waa ñeneen ak waa ñeneen loolu mu ne kon mi ngi leen di yeexe ba ci dig boo xam ne bu ñu tudd la mbokk dig boobu ñu tudd ñaari dig la mooy dig boo xam ne képp kenn ci ñun am na ko ak dig boo xam ne un ñun ñépp ñoo ko bokk dig bi képp kenn ci ñun am mooy sa bisu dee mi nga noonu sa bisu dee ñu ngi wax benn mbokk sow bu dëkk fii ci Mboro bërki biig dem na ci tarawih yi ñi ñuy def ci guddi gi nekk na sax jiite fa bañ demee ci guddi mi ngi tëdd ak waa këram dañoo yeew rek fëgg fekk dee na mi ngi noonu fekk dee na jeex na ci biig ñoo ne àndoon nekk ci jàkk bi loolu mbokk da ngay gis mille et nangam exemple yaa ngi ko ci gis kon ab dig la bu yàlla tudd feebar taxul nga dem ca am na ñu nekk daal ko ma hôpital kenn xamul dañ leen di fekk ñu dem dellu seeni soxla gis ko accidenté am cinquante nangam blessure yaram yépp a toj dañu yóbbu faj mu delluwaat ci ay soxlaam waaye dañuy gis benn waay bu reer ba rek waxtaan ak waa këram yépp tëdd du yow lu tax parce que dig la mën naa am borom portable bi am na dig bu mu utal portable bi bu mu ko war a yee nga noonu quatre heures du matin la wala cinq heures du matin tant que dig bi ñuul portable bi du sonné mais bu heure bi jotee exact portable bi sonné mi ngi noonu léeg-léeg même boo fayoon portable bi sax bu heure bu jotee moom day jóg sonné kon it naka noonu suñu borom yàlla subhanahu wa taala it ku nekk utal na la benn heure boo xam ne moom bu jotee nga dee léeg-léeg daal ci mbaaxam mu roof la ak feebar soo xam ne dana la avertir yenn feebar yi dafa baax mu avertir dama kenn maa ngi waaj a dee nga tub say bàkkaar delloo say yu demee noonu mi ngi noonu waaye feebar taxut a dee de mi ngi noonu taxut a dee de mi ngi noonu ñàkk feebar yi teewut a dee mi ngi noonu su ko defee kon suñu borom ku ne utal na la dig am maa nag am ne beneen dig nag boo xam ne moom mi ngi koy xaare lim war a bind jeex bu lam war a bindee demee ba jeex ba mu jëlu doomu aadama yi nekk ci kaw suuf ca la nag yàlla di indi loo xam ne day jaxas asamaan ak suuf yépp mu toj lépp gannaaw ba defaraat la ko neex dekkalaat ñu dig boobu mu ne bu ñëwee nag keroog képp kenn ci jaam yi bu ñëwee yàlla xam na lan nga doon jëfe ci kaw suuf kaana bi ibadihi basira loolu mbokk moo nekkoon jeexitalu suratu fatir nga xam ne bañ koy dal waxoon nañ leen ne saar la boo xam ne amul lu ci bëri jóg leen julleeg zakkaat ak woor ak yu ci bëri mi ngi delloo nit ñi ci wéetal yàlla delloo nit ñi ci gëmloo leen tawxiid gëmloo leen téereb yàlla bi la ca yàlla bëgg ñu gëm ko ca yàlla nañ yàlla wërsëgal ñu gëm ko ca